Um... mbokk ba léegi ñu ngi àndandoo ak yéen en direct minuit 32 mooy euh, doog a jot guddeegul ndaxte ñaare weeru koor gi kenn du nelaw euh, defe naa insomnie moo ñuy sonal ñu ñëpp bu ñu xëddee wala bu ñu ndogoo dañuy dem ba xëdd euh, du ci yàq dara donte ëllëg dañuy liggéeyi waaye da ci am ay gan yoo xamante ni toog jàkkaarloo ak ñoom dafay dafay neex lool Ousmane Seck moo ñuy bëggal bu ca tuuti Ousmane ñu ngi lay gërëm yow itam ci sa teewaay ci quartier général mais nuyu ki nga xam ne nii mooy madame Touré Ndella Madior Diouf Ndella ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu xarit yi nga xamante ni depuis sànq euh, ñu ngi lay xaar ci quartier général. maa ngi euh, maa ngi lay nuyu Pape Cheikh. di lay fay. di nuyu euh, ñi toog si plateau bi yëpp. di baalu ak di leen di baal ak. ah di baalu ak tous les téléspectateurs de TFM. Mhm. ah ndax ñu ngi si si weeru koor bi. Mhm. képp koo xam ne defoon naa lu la nakkari maa ngi lay baalu ak. Mhm. ñi ma def lu ma li ma nakkari. maa ngi leen di jéem a baal ak maa ngi koy jéem. yaa ngi koy jéem quoi voilà. pourquoi nga koy jéem baloo leen ko. je suis tellement naturelle je dis maa ngi jéem. ndax parfois day saf. <laughs> donc je vais pas dire maa ngi baal ak kan moo la mujjee tooñ te vraiment lim la def daal yow xalaat yaa ngi jéem daal pour baal ko franchement entre nous. entre entre nous oh non euh, ñi ma tooñ bëri nañu. <laughs> bon ñi ma mujjee tooñ fan nii dañu doon foo rek dañu doon foo. voilà parce que man comme Mouhamed Ndiaye. man moom dama euh, damay damay ku ma def lu ma naqari day day saf si saa si ma ma déconné si saa si mais après bon damay fàtt seen lu ma nit ki defoon. dëgg la voilà j'oublie facilement quoi. je suis pas rancunière. Ouais. voilà nit di ma def lu ma naqar je sais ma déconné après euh, quelques années plus tard dama ne kii lan la ma defoon sax. wo leen ma diw waaye dama ko nam dangay ngay fàtte. damay fàtte wala oh la je suis pas rancunière moi. des fois des fois j'oublie waay mais mun na tàng mais après avec le temps j'oublie. <laughs> ah tooñ ko dëgg. yaa ngi koy tooñ nag. non moom daf may tooñ. déet man damaa wax rek waxuma moom la dama ne. tooñkat dëgg foo ko fekk ko ko tooñ mu fàtte ko. ah bon xaw na xaw moom la. xëy na moom mooy wolof bi quoi moom moo xam wolof boobu proverbe boobu. est-ce que est-ce que ça veut dire que tooñkat nga. je sais pas xaw ma mais kan nga jàpp ni moom mais man du may général du may tooñ. Mm-hmm. nit ñoo may tooñ. voilà donc d' ailleurs euh, euh, notes yu ma indi sa bu may ñëw. Mm-hmm. j'avais décidé de commencer l' émission par euh, lu tax Sénégal ñu may tooñ. d' accord ce sera donc la première voilà. question. voilà il a bien commencé l' émission. lu <laughs> tax lu tax ñu may tooñ. lu tax ñu lay tooñ. yow yow xam nga ci dara. on démarre l' émission quoi. ayca c' parti. voilà lan moo lay tooñ pour yow. oh c'est tellement difficile euh, quand on est une femme dafa xaw a métti soo nekkee jigéen donc euh, célèbre te yàlla bàyyi la quelque teranga donc je peux dire riche xaama tooñ ko tuuti ah oui. oui c'est-à-dire siiw nekk jigéen siiw ba pare riche. da lay tooñ te doo pourquoi lan moo waral da nga lay provoqué da nga lay la wala. oh c'est les Sénégalais qui sont comme ça donc mën naa la ko limal par exemple mon histoire euh, li indi coow li temps yi. Mhm. tu sais de euh, rajo dama passionné de rajo. Mhm. mais dama egg benn stade boo xam ne comme tout le monde faisait la même chose. Mhm. j'ai changé de stratégie ma ne maintenant je vais ouvre d'ouvrir les studios de la radio au public. donc ma créé Saphir Club TV FM. ça veut dire que je permets aux auditeurs je vous donne une idée par exemple mu permettre aux téléspectateurs. de venir de venir euh, de venir regarder TFM euh, Quartier Général et puis. voilà la différence avec vous moi je je diffuse et j'ai le public. Ah, les touristes de Saly loolu fi nga ko fekk de waaw mais bon c'est un nouveau concept boo xam ne euh, les auditeurs viennent ils consomment mm-hmm. ils consomment et ça fait des rentrées d'argent mm-hmm. côté consommation et puis côté serveur avec l'interactivité des émissions mm-hmm. donc euh, c'est le club de la radio d'accord donc j'en ai à Dakar à Sacré-Cœur 3 lan moo indi coow li parce que man selon mes antennes il paraît Mohamed Ndiaye que euh, vous êtes même recherché bon que ñu ngi lay fi mu nekk nii. voilà mais je suis devant toi quand même police mu ngi lay seet il paraît mais je suis devant toi n'est-ce pas. mais, mais j'ai pas compris. Ah, voilà voilà est-ce que euh, je vais essayer de de commencer par là où j'ai de commencer l'émission. lu tax ñu may tooñ. ma ne dama siw am xaalis. ma tey. am nga am déet. am nga ci droit. lu tax ñu may tooñ léegi ku am xaalis da ngay da ngay nangu. teel a tëdd teel a yeewu. Hmm. liggéey dégg nga wax ji. Hmm. soo liggéeyee xaalis ñëw am déet. dëgg la mais bu doon évaluer soo liggéeyee xaalis ñëw richesse bon on peut l'évaluer euh, d'une autre manière. mais je parle de l'argent. waaw waaw exemple am 2 milliards 3 milliards ou 4 milliards yoo xamante ni. mën na wax ñaata nga toogaale. Ndella Madior Diouf loolu solo. ah mais non ah, li am solo rek mooy. Ah, nga mën a nga mën a lu am solo mooy nga mën a fekk sa soxla. waaw d'accord fekk sa soxla bon ku nekk am na ñoo xam ne. bari nañuy su ñu amee sa 100000 francs riche nañu bari nañuy faj seen soxla am na ñoo xam ne su ñu amee 100000 francs riche nañu. donc boo nee da ngaa riche nag ñu wax ñaata nga toogaal teranga. waaw mais bon. je termine ce que j'étais en train de dire. du demee noonu nag parce que doo fi ñëw andi say questions. après du ma du sama xarit. waaw mais mu ndogu si ak man aussi. ngeen koy kàll kàll bëgg a jàng si man da nga bëgg a moom. maa ngi góorgóorlu daal waaw maa ngi sant ñun dañoo bëgg jàng ci moom. gan gu mel ni boo ko amee. Mm-hmm. day laaj day laaj nga koy laaj mu lay tontu ngay xam di noter. mais bu ñëwee ak questionnaire wax na ñi lay déglu sama émission finalement ay téléspectateurs la ñuy doon comme ñi seetaan seen. bon après après après après après après am na ci. léegi lan nga bëggoon lan nga bëggoon ma tontu la. ponk boo junj. bu leerul suñ bopp. nga leeral ñu ko. nee nga da nga siiw. jigéen nga da am xaalis. am xaalis c'est ñu bëgg a xam ñaata nga toogaale ci teranga. loolu dafay varier su ma liggéey day bëri su ma liggéeyulee mu wàññeeku su ma fippoo mu yokkuwaat ah. c'est tout. loolu mooy wone que soo liggéey rek am soo tëddee nelaw doo am dara. <laughs> mais mënuñu am chiffre exact. c'est pas important. mais mais toujours est-il que oui. waaw mais da nga ni sànq Pape Cheikh daf la posé benn question mais doon toogoo ci Ndéla xam nga sànq internet doon wax naan Ndéla Diouf euh, <laughs> Ndéla Maajo recherché madame Touré mais euh, bëggoon nañ xam problème bi lan la s'est-il passé lan lan moo xew non ah, ma dégloo rek dina dinaa leen expliquer parce que su fekkee dama dama dama tontu lu gàtt doo leen comprendre mm-hmm. si vous avez envie de comprendre on est venu ah si quartier général laa ñëw. Mhm. te am jot nag am jot nee naa leen soo soo leen dawulee rek. Mhm. du daw kon tey ñoo ko xëy ah, xam nga temps yi da nga bëgg a dem da nga bëgg a def quartier général ba xëdd heure xëdd maa ngi lay seetaan. je envie de le faire ba heure xëdd. alors allons-y. ayca kon tey ba heure xëdd. allons-y. d'accord c'est parti c'est un challenge wala soo leen dawulee ma daw. wala pour pour pour pour neexal jotaay bi comme defe naa ne ñëpp concentré wu nañu pour déglu sa version. pour xam exactement ce qui s'est passé ba coow li bëri ça fera une à deux ba trois semaines ñu naan Ndella am na coow am na problème te du gulet qu'elle est même recherchée par la police et pourtant elle est avec plateau bi en direct qu'est-ce qui s'est passé fan la histoire bi jógee ay laaju Mouhamed Ndiaye Youssaf ay euh, question wu Fatidien ak journaliste yi nekk ci plateau bi yëpp balaa yi muy tontu euh, ci li ñu ko bëgg a laaj j'aimerais Ousmane Seck quand même wayal te la ca maam sëto koy jël. ah gis loolu ma solo tey. waa solo buur de. ah bah oui. fi ne yaa ngi mel ni jàpp euh, yaa ngi mel ni buur sin ko mëndoo fee. ah bah oui. c'est la naissance. maa la wax lii na woy parce que dafa war a woy. ayca man dag may woyal de. ah bon. dama judd ñu may woyal ma mag ñu may woyal. loolu rek laa xam dag may woyal. Mhm. <laughs> ah bi dag may woyal. ayca kon kon Ousmane. na woy Ousmane woyal. bu ñuy xëccoo wurus. xam naa ku jël ngelam doo perte ndela Maajoor Juuf xam naa sa yaay ku jël ngelam yow doo perte ndela yéen dina mën góor lu war na bu wurus waaw naa ku jël ngaalam doo perte maa joru juuf su ñuy tukkee di yow laay wi naa la bàkkat naa ndee la maa jot am na xaalis man de na jigéen dina mën góor ne la ma jaar bu ñuy xoccoos man xam naa ku jël ngaalam doo perte da day maan su may tukkee ci yow laay àndal Pape Cheikh ñaan la fekke ba oh ne la ma jaar bu ñuy xoccoos xam naa ku jël ngaalam doo perte seexu su may tukkee te yow laay ànd Pape foofu boo déggee way yi am na fu sa xel war a dem muy Aïda Deyman Chérif Chérif bi Chérif bu siis la nag ci way wi mm-hmm. mais boo gisee ma def introduction dafa di ñun artiste dafa am foo bu ñu fa tolloo point lay doon pour nga yëkkati moo tax ma yëkkati jëmale ci Ndella Madior Ndella Biram Mbaru waaw Ndella Biram Mbaru mu nekk koo xam ni moom it euh, dafa liggéeyal Sénégal di jigéen macha allah tey ñu am chance dajeek moom ci plateau bi donc moo tax foo ko ñu tooñ ko waaw loolu la kon nag Ndella comme da ngaa bëgg ay way moo tax ñu tooñ la doon comme introduction jeex na mais c' est improvisé. parce que dañoo dañoo daje fii rek muy chance donc dañuy profité ci occasion bi. très bien. ay ca sama gars yi. bu ñuy xëccoo wurus. xam naa ku jël gaalam doo perte. sa kër da daw su may tukkee ci yow laay àndal bu ñuy xëccoo man xam naa ku jël ngaalam doo perte ci jóg di ngeen su mm. may tukkee ti yow laay way naa laa noppal nga ay dëdëy maan ka dar nga sama chérif baay su may tukkee ti yow laay suñuy xëccoo man xam naa ku jël la jëri suñuy tukkee te yow laay ànda day maanoo day maane day maanoo day maane Chérif أيضا دايمانو شريفا day bi taje ngay sa yaay mara yi bayam Omar Abdourahmane sama Binta Jeng moomu Omar ay baayam Omar Muhammad oo Muhammad Muxtaar Muxtaar Muhammad Muraan de Binta Jeng sa yaay namp nga wenu Sëriif ay da dey maanoo Sëriif الله عيد الإيمان مختار محمد أمرار محمد أمرار أمري اليقب موي عيد الإيمان أبو بكر سعد الله سيد إدريس عبد الرحمن شريف nga Aboubacar Sadiq mooy baay soxna Aïcha kookoy sa maamo Chérif nga ay dama ko wayal loolo alga fay sa baay mata dumbe joob sa maam boramadan ay daliman boramadan amikan tukulor shiri mamado magi char shiri ndapa boramadan amikan tukulor ñi ngi ci weeru koor boramadan jibi waar boramadan moo góora ma taa Rundumbé waa góora ma taa yal na yàlla nangu ñaan góora ma taa oo di Rundumbé waa kan jàll tukuloo góora ma waaw yaay mare góora ma gibi gibiler görünmeler Boramadan, boramadan Penda fal sabar nyambut boramadan Lagi pagai fal boramadan Shiru amadu dem boramadan Ufagay mu amadu kanoo Sesujud Paramata yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla nangu ñaan Pape Cheikh Diallo Ramadan Dalla Madior Diouf Ramadan Ramadan Ramadan خليفة يا باقي برمضان سوسوجم لا توري زمان jigéen dina mën góor boramadan boramadan boramadan boramadan boramadan jërëjëf Ousmane bon Ramadan à tous et à toutes ah yéen ñii seetaan àndandoo ak ñun en direct ci quartier général Ousmane ñu ngi dellu soit ak yow ci euh, seen grand euh, grand théâtre laa doon waaj a wax euh, quartier général plutôt léegi ñu delluwaat ak madame Touré Ndella Madior Diouf pour fàttaliwaat mbokk yi li ñu la laaj sànq coow li lu ko waral. voilà lu tax ñu mhm. parce que je tiens quand même à répondre à cette question. Mhm. parce qu'avec du recul. Euh, je me suis dit, euh, c'est tellement difficile d'être une femme, une vraie femme sénégalaise qui se bat dans l'entrepreneuriat féminin. Mmh. C'est très difficile. Euh, quand j'ai décidé d'ouvrir les stations, les, les, studios de la radio aux auditeurs, j'ai mhm. mmh. décidé de créer club. Safir. xam nga Youssou Ndour dafa am amoon na benn club bu nekk cosaan mhm. mais dafa séparé cosaan ko séparé après la doog am rajo mhm. donc man dama def rajo ba pare doog ko jël cosaan dugal si bii d'accord pour ngeen mën a comprendre voilà xam ngeen da ngeen ko séparer mhm. man na ko def benn bloc d'accord et ça sa fait des rentrées d'argent mmh. publicité serveur et la boisson et le restaurant ma décidé ko def ko fi ñu doon wax good life au point E mhm. donc je pense que ñu nekk fii war nañu xam good life et que c'est fermé man maa ko jëlaat ah. en 2013 j'ai voulu faire là-bas Safia Club Dakar soo leen seetloo foofu toj nañ fa ba doon ko defaraat n'est-ce pa donc Ahmed Amar doomu euh, Ahmed Amar Papi Samar. Mhm. moo ma ko luye woon à 650 000 francs par mois ma gëm affaire bi projet bi. Mhm. je dis je vais faire un club à Dakar et l'espace est tellement magnifique. Mhm. et j'ai mis 15 millions là-bas këpp ko fa. lu tax mu may tooñ. ndax dama ko dama ko dama fa këpp ak une générosité avec un contrat ñu dem ba si biir papa ji ñëw ne xaw ma woon que sama doom loué na la ko. Hmm. arrêtel travaux yi pour le club que tu veux faire ici hmm. alors que j'ai tellement mis de de l'énergie dans ce dans ce club si liñ Sonatel ñëw installé li ñuy. donc euh, ñuy pare dafa benn euh, ba petit studio en direct pour nekk en direct à la radio les artistes ñoom Ousmane ñoom Seck ñoom ñëpp ñu leen doon euh, pare invité pour ñu mu nekkaat Good Life bu nekkoon avant moi je connaissais pas Good Life dama doon wër benn espace dans Dakar boo xam ne mën naa fa def le club de Dakar bon après monsieur Amar est venu me dire mon fils t'a loué il n'a qu'à te rembourser mais je préfère que tu arrêtes tous les travaux. J'ai arrêté les travaux puisqu'il a promis que son fils va, s'il le faut, il va faire un prêt pour rembourser. Mm-hmm. Ah, comme j'étais déçue, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait là-bas quatre mois. Mm-hmm. Après, di communiqué ak ñoom par texto pour qu'il démarre les les remboursements fekk entre-temps il y avait arrière lu ndox yi fa nekk ma épongé arrière Senelec ma ma épongé ah. j'ai mis de l'amour dans ce dans ce club mmh, quoi. Ah beaucoup d'amour. Mmh. donc après ils n'ont pas remboursé. lu tax ñu may tooñ. lu tax ñu da nga wax ñoom da nga wax là je parle avec le cœur. lu tax ñu may tooñ. oui da nga wax ji. monsieur Amar a de l'argent NMA Sanders doomam tooñ na ma lu tax mu ne ma naa club bi ma bëgg def lu tax mu weeru koor la ngi nekk de. waaw da bëgg a comprendre. yaa ngi toog ci télé léegi foog ngeen dégg bu baax. parce que moom dafa am benn image bu bon si man. tey daf may am patience déglu ma pour mu xam pour ñu dama bugg Sénégal ñu wax ma lu tax ñu may tooñ. am déet. voilà am nga si droit. naa si droit. quand même lu tax ñu may tooñ. ndax tooñu ma kenn. da wax di là je parle avec le cœur. wallaay xam nañu loolu. donc monsieur Amara dit son fils va rembourser. finalement deux ans après mu remboursé seulement un million huit cent suuf euh, comme que néegul joxe xaalis mu joxe ko aliment de volaille parce que dama am ay poulailler man ne comme que bëgguloo joxe xaalis joxe ko aliment mu joxe seulement caution bi parce que caution bi un million huit cent laa joxe woon di fay que six cent cinquante mille par mois. defar travaux bi yëpp ba pare néegu ñu jox xaalis bi remboursé xaalis bi. Mhm. ma ne du ma dinaa leen bàyyi ak yàlla. dama bëgg rek ñu wax ma lu tax ñu tooñ ma bon ma jël si laa jël samay bagage ma ne bon avec le temps il va yaramam dina daw dina remboursé noonu laa atterrir sali pour répondre à ta question bi ma demee ma njëkk a dem Saly ñax-ñaxal yooyu bëgg maa rey ndax Saly ñax-ñaxal yow yow moo fa ne pour les gens qui quittent Dakar pour aller à Saly oui am ñoo xam ne sa Rufisque xamuñu ko donc ma ñëw sali choisir local bu rafet piscine espace je dis que l'idéal pour faire le club ouais, mais yooyu ñu bëgg maa après mu nekk si pax mu nekk si pax on peut pas émettre si pax moom nee na ma fu ne yóbbu na fa rajo bi ba kulikoro lan moo lan moo si ay le l'essentiel nag ma dégg rek <laughs> fu ma neex laa koy yóbbu maa ko moom fu ma neex laa ko yóbbu <laughs> donc bu ñu fa jógee ah ma dam maison de la pierre. Mhm. boo demee maison de la pierre mooy kër bu nekk en sous de pierre bu nekk wetu gendarmerie Saly. Mhm. man maa fa njëkk a dëkk maa njëkk a karale foofu mhm. ma def fa tamit beneen amour képp fa bon cette fois si euh, je pense c'était cinq millions et quelques naka ngay héberger nit. pour mu installe rajo nga loué ko avec un contrat nga ne antenne bi du fa ne parce que nga ne terrasse bi am na benn appartement bu rafet di ko loué un million cinq cent nga ne tant que jëloo appartement bi doo fa teg sa inter euh, sa sa antenne lu tax mu may tooñ hmm. c'est pas parce que mun naa ko léegi may imposer pour ma jël appartement bi un million cinq cent alors que l'appartement que j'ai loué c'est quatre cent vingt cinq mille parce que seen ndee la mun na ko parce que jigéen la lu tax mu may tooñ. quand même. oui. Oh, non kii laay ah oui parce que Sénégal dañuy tooñ nit ba pare njëkkoontu ko comme que léegi je suis la dans la communication. li ñu def émission nii sax am na ñu nekk si région yi ñu ngi ne envoyé texto rapidement kat kalel ndeela mi ngi toj télé bi. Mhm. parce que léegi information yi dafa gaaw quoi. dafa gaaw pour espionner nit wala pour yàq nit dafa gaaw. après nag suñu la yàqee ba pare nag ñu jégalu la. dégg nga wax ji. Mhm. ma nekk États-Unis mu ne ma léegi soo buggee teg sa antenne fii soo buggee mu yàgg fii il faut impérativement nga louer appartement bu nekk. si terrasse bi c'est la famille Badawi parce que damay wax tur da ngay wax su fekkee dangay wax lu dëggu xam nga am loo lay ragal. Mhm. da wax tur da nga wax ni donc donc la famille Badawi ne ma donc soo jullee terrasse bi appartement bi dindi sa antenne. Mhm. ma ne bon ñii dañ may sonal mu am benn animateur bu ne gis naa benn local. Mhm. bu baax pourtant. Nafil euh, ak euh, beneen bu nekk euh, wetu wetu mairie bi. ma jël ko san gis ko. parce que man dañ ma yar benn sonnoon nga. pas sonnoon na ma damay gëm sur parole. d'accord dama soo ma nee Aïssatou Paye yére bu jaune la sol. Aïssatou Paye yére bu jaune la sol noonu la ñu ma yaree. donc ñun xamuñu fenn xamuñu wax lu bon. Mhm. on croit seulement sur parole. léegi malheureusement ba ma demee ba joxe caution yi ma ñëw gis local bi franchement neexutuma woon. mu mel parce que tuuti nekk poucous quoi parce que moi je suis à de grands espaces. quand même. ah que je suis à de grands espaces. quand même ci sa de locataire dedans. c'est sûr. ah oui parce mhm. ku nekk ak lu mu xam effectivement ku li nga xam. Mhm. di nga wax di donc ma jógee na fil nag atterrir na si endroit bu am problème bi. kon problème yi am yëpp yeggaguñu ci fi endroit ñu si problème bi gis nga kii tooñ na ma daka sa euh, Ahmed tooñ na ma waaw famille Badawi tooñ nañ ma waaw Nafil tooñuñu ma parce que dafa ku pukus ma ne fii soxla ma ko kon yaa leen tooñ non dama fa amu tooñ foo amu tooñ ma jógee fa jël nag benn local boo xam ne mi ngi la ko délabré benn façon délabré mais y a un tellement charme da gis benn kër parfois mu màgget nga flashé man damay flashé mm-hmm. su may jënd tissu damay flashé su may jël kër damay flashé léegi dama flashé si kër bi léegi wax ji amoon na ay yëri ay kii ay garab yu bëri mais kër gi dafa attiré mm-hmm. parce que mi ngi nekk au cœur de de Saly mais délabré kenn bëgg fa jaar mm-hmm. ku tudd Patrick Noël moom moom kër gi un ressortissant français ma ñëw ndeysaan Bon, le voir dans les locaux, euh, c'est, euh, bon, il voulait partir, il voulait quitter le Sénégal. Mhm. Il m'a souhaité bonne chance. Il m'a même dit, le jour où ça va pas marcher, je vais réduire le loyer. parce que daf ma yërëm. Mhm. mu ne ma kii mi ngi ñëw si foo xam ne dara amatu fi ba man maa ngi daw France moom mu ñëw deewu ne dafi de club. Mhm. ba ma ko jëlee ba pare ma tourné rek ruus. parce que l'endroit parce que ñoom dañ ma nëbb ils se sont débrouillés pour nëbb ma ba environnement maintenant ma gis environnement bi tilim ay déchets oh tilim quoi tilim wala laa tilim après mënu ma nekk fii les sapeurs pompiers de Saly ñu ñëw seet si ma ñu ne man dee la ah yow fi nga ne yow xanaa gisoo woon kër gi bi nga koy jël wax dëgg su fekkee da nga décider toog si kër gi nga defar ko mhm. parce que sinon ak sa image franchement ça colle ñoo ma conseillé loolu de. Mhm. léegi comme que tali bi dafa dafa tilim. Mhm. ma dafa opération set sesal sans l' autorisation de la mairie. ah waaw. Mhm. këpp fa xaalis. tibb lépp. nettoyé lépp. karole lépp. ba ñuy dem di julli ji fa la ñuy jaar. ñëpp di gërëm. ma de ko Alioune Della Madior am naa si droit wala amoo si droit. benn droit. ma ne am naa si wala amoo si droit. benn droit. voilà amoo si droit d' accord mais da ma bind Alioune Della Madior Diouf. mais après après a raison. sans la mairie. sans l' autorisation Mm. sama xarit la ab ka jubóo mu ne ma yow yow nga ñëw <laughs> fekk ma sama sama local bi ah ma ko doon waaje defar nga defar ko tuddee ko ma ne man di tuddee naa te da nga fa def plaque ak yëpp dama bind ale Ndella Madior Diouf nañu ko yëfu buur siin nga def de xanaa ma aaloo ma ne leen tojal leen ma lépp ngeen génneel ma lépp delloo li ngeen fa li ma fa dindi woon joxe leen ko bi ma aaloo dindi leen lépp te ngeen delloo fi déchets yi fi newoon mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre parce que ça ça ça ah, dama defar dama ko defar léegi nag ñuy jom julli ji jumaa jeeg ñëpp si allé ba la ñuy jaar à Saly allé Ndella Madior la ñuy jaar pourtant c' est l' argent boo xam ne defuma ko sama kër dama ko def si mbedd bi ba nit yi léegi fa la ñuy jaar. oui pour sa intérêt pour que nit ñi. pas non non non pas pour sama intérêt non pour que mu mu parce que on pouvait respirer. on peut te rafetul woon. ma c'est une question c'est une contribution à la mairie dama dama jàppale mais Ousmane Gueye xanaa ñoom dañuy demander ñu jàppale leen mhm. ma jàppale ko. dama ko appuyer. mais pourquoi sans l'autorisation de la mairie aussi. mais d'accord mais après boo ko bëggoon jàppale boo ko bëggoon jàppale mën nga dem nga gis mairie bi nga waxtaan ak ñoom. mujjee nañu waxtaan ba jubóo. mais après. dafa mel ni tey rek nga ñëw buntu buntu buntu TFM. Mhm. mu am ay ordures nga ne da ngay xaar mais euh, maire Yoff vous dépendez d'où encore. mais bor voilà voilà donc euh, mu ñu il faut l'autorisation pour nettoyer mbalit bu nekk si buntu tey fa non non non non donc c'était la même chose non c'est différent c'était la même chose parce que yow ñëwuloo fa jël fa loo moomul tuddee ko sa bopp non dama ko defar ba pare tuddee ko sa bopp bon bref bon ça ça ça crée pas un problème ça va créer un problème voilà d'où est venu le bon voilà kon ma baalu ko ak na nangu ne foofu tooñ na fi d'accord kon ma baal leen ak foofu ma tooñ fu problème bi jógee non foofu problème bi jógewu fa hmm. bon Alain Deela Madior mën nañ ko tuddee doon ale Ousmane Gueye amoo benn problème ale Ousmane Gueye wala ale Macky Sall amoo problème nañ si tudd ale Macky Sall wala ale Ndella Madior wala ale mu nekk ko tuddee non <laughs> amoo problème léegi après ñu waxtaan léegi nag ñu dem bi ñu demee ma décidé nag defar kër gi xam nga man su may defar comme di mon père Ndella ne compte pas day ñëw rek këpp mhm. léegi après moo ñëwee nag ndeysaan lépp lu ma fa def programme ma ko woon. j'ai même négligé la radio de Dakar en restant deux ans à Saly en train de faire que des travaux de rénovation soo jëlee sa kër loué benn kër tey soo ko waree peinture est-ce da ngay laaj autorisation xam nga doo laaj autorisation. ndax da nga peinture sa néeg. am déet. Mhm. ma peinture néeg bi peinture studio yi. peinture extérieure yi parce que loolu laa ne woon propriétaire dinaa la ko dimbalee ndax moom si caution bu ma ko jox moo war a peinture lépp am déet di loi bi loolu lay wax soo jëlee kër propriétaire moo war a peinture lépp mais comme que jox naa ko caution bi te bëgg na dem France su ko peinturé day wàññi xaalis muy yóbbaale ma ne bon comme que bëgg naa parce que dama bëgg local bi ma ne garab bala dama flash donc ma ne léegi dinaa la dinaa la peinturer après ma peinture ko te dindiwuñu ko si loyer bi ma fay fay quatre cent cinquante mille par mois mais góorgóorlu ba à un certain moment donné je commençais plus à flasher puisqu'il était un peu difficile. c'est-à-dire. Hmm. ça rapportait plus. je commençais plus à parce que pour que ça rapporte il faut que c'est des travaux de grande envergure. Mhm. donc euh, du loo xam ne da nga koy def tey tey tey tey. donc j'ai dit au propriétaire je quitte mu ne ma tu as fait un contrat de de deux ans renouvelable si tu quittes tu me payes mes deux ans. tu je réduction de 300 000 et tu restes. j'ai dit donc tu me fais cinq ans renouvelable par tacite reconduction mu defal ma 300 000 jox ma dix ans. et je suis revenue parce que man su may toxu damay yeewu suba teel samay bagages ku gaaw fay laa moom <laughs> yeewu su ma tee rek. sans préavis sans préavis. <laughs> mais nag il faut absolument mais quand j'ai envie de partir. tu pars je pars. et après les avocats peuvent faire le reste. quand même. je pars. je veux j'ai pas envie de rester. je reste pars. si domaine quand j'ai envie de partir je pars. yëpp mais mais bu fekkee nag tous les domaines. mais ndee la mais bu fekkee yow nee nga doo tooñ. te de comme li nga waxee ni quand tu as envie de partir parce que tooñ su ma ba xam nga su ma toogee kon xeex day am ci tooñ bi de. et puis comme damay bañ xeex. waaw je préfère partir. léegi continuer l'histoire bi ñu comprendre waaw. quand je suis partie. Mhm. mu convaincre ma dellusiwaat ma ñëwaat tegaat samay antenne toog bi ma toogaatee nag xam nga contrat dix ans mooy cinq ans renouvelable par tacite reconduction avec des travaux à faire yoo xam ne propriétaire bi écoute là j'ai pas d'argent tu investis tu finances tout et après une partie on va le déduire sur le loyer et on fait le contrat ma dafa rénovation yi léegi bâtiment bi daal dafa màggetoon si gàttal. Mhm. nga defaraat ko d'accord. defaraat ko mhm. fan léeg laa tooñee. Mhm. si benn fugg ak yéene ma ma ma ñu foog a ne que fu may def poto yi si kër gi la bokk ndeket yow bokk si poto yi Ousmane Gueye jóg ne fi nga def poto yi bokk si si voie publique la. déjà njëkk nga ko tooñ nag. boobu tooñ naa waaw. nangu la oh problème kon lu wax. mais poto lan. poto parce que comme que terrasse bi dafa am ay tuiles ay ma bëgg ko ma bëgg ko couler pour mu am superficie bu gën a yaatu léegi ñu def poto yi comme propriétaire bi d'accord na. pour man am na autorisation de construction et tout signé nañu jël na xaalis bi xam nga soo joxe xaalis yi ñu enquête day neex. mun ñu door poto bi ñu dooree poto yi nag Ousmane Gueye yëngu ñëw ne amu leen droit def poto yi si la ñu doog a découvrir que kër gi si boppam amul autorisation de construction. waaw. ça ko dire tubaab bi fu mu nekk fu mu luwee. waaw amul autorisation de construction. xam nga ñu ngi may tooñ. waaw ah, noo tooñ waaw xam nga boobu tooñ nañ ma. Mhm. fekk naa benn kër bi ngi tabax ba pare. amul autorisation de construction loué nañ ma ko ba ma nekk fa. Mhm. day wax ji. mu man ma Ndella comme que mi Ousmane Gueye nee na poteau yi daal na fi jóge te on a tellement financé euh, avec cette avec cette histoire de poteau la mhm. ñu dindi waat poteau yëpp. ma ne garaaw na nga dindi poteau mhm, yi. bi nga dindee poteau yi ñu reculer le directeur de l'urbanisme ne ma tant que mi ngi yem si frontière u kër gi. amul mun nga def say travaux wax ñu def ñu engagé suñuy travaux bi nga defee suñu travaux nag benn restaurant chez nekk en face nekk si batiment bu màgget bâtiment mu commencé daanu man daal maa ngi nekk fii dafa samay poteau di defar di daggay garab di liir mu ngi ne coll rek dama xool bi ma paree sama rez-de-chaussée yi jóg ba ma kule xam nga day am ker xam nga da am ker xam nga da ngay am espace ma dem États-Unis rek ñu suufu sa kër fekk man dama ko doon transformer étape par étape pour mën a jël après lépp après plus tard jënd ko parce que quand tu acceptes d'investir quand dans un bâtiment avec beaucoup euh, euh, j'ai mis plus de 50 millions dans cette histoire là ah bon ah de rien pas immédiatement mais progressivement oui, oui, oui. ne serait-ce que les loyers 450 000 francs euh, deux ans C'est balèze. Hein. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Mm. mois rek c'est 4 millions 500. Mm. Quand de 50 millions, donc on sous-évaluer ça. Ah ouais. Donc léegi après ah ma ñëw ñu ne ma ah dégg nañu que chez Jodé day loué si suuf ma ne ñemewuñu ko j'ai même pas fait un j'ai même pas appelé le propriétaire pour ne ko bu ko loué si suuf parce que wax na ma prix ba pare ma ne naa ba pare après je vais prendre en bas prendre lépp après prendre parce que moom dès le départ écoute tu achètes ma on va le faire progressivement bon Chejo ñëw suufuma jël dibiteram en face ñëw teg ah saxaaram bi yëpp ñëw sama terrasse ma ne waa kii lu tax ma may tooñ parce que mi ni en face man maa ngi defar maa ngi bëgg a defar dibiteri fast food. ah yow tam da nga am ah dama am dibiteri sari am fast food. am club bi yëpp la am il faut venir faire on va faire quartier foo déggee quartier général di quartier général man ngeen plage en écoutant ma rajo wéy wéy sama baat si kaw pas cher. lan laa tooñ foofu tamit. da moo tooñ dañ la tooñ wax. lu tax ñu lay tooñ venez dans mon quartier général dans mon spot publicitaire. bee kaw ma déggee quartier général. fàtte woon naa loolu sax heureusement ba ñun ñu déglu sa rajo <laughs> parce que rajo yow lañ dul déglu waxatuma la carte rajo heureusement ba <laughs> moi je peux pas ta rajo donc <laughs> mais alors dans le sport je disais mon quartier général d'accord d'accord après quand on a fait QG quand j'ai entré QG nga ne ma ne oh, oh jël nañu sama QG parce que je je disais dans le sport mon quartier général parce que j'aime bien le terme QG oui bon donc c'est une coïncidence oui voilà c'est ça kon min da yéen neex naa jubóol moom mi ngi may toggal benn affaire boo xam ne kon lu tax ñu lay tooñ. kon lu tax nga may tooñ. franchement. Ah, parce que c'est mon quartier général. Ah waaw doo mujjee jour c'est mon quartier général. doo mujjee jour jour c'est beaucoup plus grand qu'ici mètres carrés. on viendra c'est magnifique mon quartier général là-bas c'est magnifique. Mmh. mon quartier général parce que da nga ah, parce que c'est c'est passionnant cette histoire. lu tax ñu may tooñ. yaa ngi séjour na. waaw léegi. Cheikh Jo ñëw si suuf. dégg la ma rek film bi dafa intéressant boo ñëwee daf di bitari waaw jël saxaar bi dugal ko sama sama terrasse. ma dem service d'hygiène ñoom ils n'ont pas digéré que ma dem ci service d'hygiène. Ah. service d'hygiène ñoo imposé leen ñu cheminée bi ñu gën ko yéegal si kaw. c'était pas la solution d'ailleurs après j'ai appris à tolérer. waaw waxtaan ak ñoom loolu la ñu xam. j'ai appris à tolérer waxtaan ak euh, le propriétaire après toléré ko. Mhm. mais lui après il ne m'a pas toléré. kon. te fekk ma sama environnement. bi ma commencé defar Hélène Hélène Ndéla Madior rek fekk ma amoon na benn espace boo xam ne si man la féetee d'après le protocole pas d'après sur le protocole si man la féetee rek mu profité di carrelé si pour noyer ma sama rez-de-chaussée correctement. mënoo tiré foofu ba soo ñëwee ne jàkkaarloo bâtiment bi doo xam fan mooy entrée Saphir Club kii lu tax may tooñ. lu tax may tooñ kii. lu tax mu lay tooñ. Ah. ma ne xaaral ma noppi parce que di nga egg benn stade boo xam ne di nga tooñ mais yàlla day taxaw. surtout soo noppee. lu tax mu may tooñ. ma ñëw defar. dibit sama dibiteri ñu nekk ñu nekk en rivalité qu'en concurrence mu ñëw rafle clientèle bi yëpp. ay ah, tamit entre gis nga fa def parce que c'est ça le projet. entre temps ma loué oui mais nekk ci même. absolument mais moo ma fekk si. moo fekk si sama espace bi ma doon defar. kon lu tax. parce que euh, laaj ko lu tax mu may tooñ. Ah moom nekk na si bâtiment bâtiment daanu na na dem feneen. pourquoi muy ñëw si suuf sama sama espace c'est mon espace nom de Dieu su ma ko deful woon su ma ko i woon dafa ñëw dama ko defar mu ñëw il faut bien m'écouter. on vous écoute on vous écoute. voilà sa espace la woon xanaa bi ngay loué bërëb bi. si kaw rek la la loué. après di dafa commencé dafa si suuf. d'accord donc su paree puisque le propriétaire n'était pas là su paree rek après ñu donc ma ubbi Safi Club te travaux de rénovation rénovation yi séparé wu. Mhm. artistes yi ñëw du Ndiaye du Ndiaye Mbengue di ñëw di tëgg. Mhm. Euh, tous les artistes de Saly ñu def seen promotion parce que les soirées c'est en direct à la radio. ah ce que vous faites pas d'accord. Ah, c'est en direct à la radio tu comprends. bu leen sàkk sama idée yi de. c'est mon am na am na ci King si on on le fait là vous le def après. bàyyi ko def xam nga le charme c'est quoi on vend de la de les gens consomment. Vous, vous ne faites pas ça. Donc moi, je fais consommer les gens. C'est différent. C'est dif... da ngeen nangu. bàyyi nañ la ak jour foog ngeen nangu ko. <laughs> ne ko bàyyi nañ la ak jour. parce que c'est différent. c'est un complexe de Club TV FM. d'accord droit d'auteur ak histoire bi wax amul problème. <laughs> man dinaa créer quartier général club. ah oui et c'est tu vas trouver que c'est intéressant. ah oui je ferai ça. que les gens consommer il y a le bar à côté et puis voilà quoi. Voilà. c'est sympathique. léegi lu tax doo ñu wax histoire bi. lu tax nga ñuy parce que il faut lu tax. <laughs> d'accord ñu ngi ma dem maa <laughs> ngi di avec beaucoup de clarification. ok yaa ngi woon ci fi mu rafle clientèle bi. bu mu rafle clientèle bi. xam nga comme ce que j'ai dit au préfet je suis pas venue à Saly pour. pour. j'ai un message baal ma bu jógee ci téléspectateurs yi ñu ne lu tax nga leen di tooñ ñu ngi bëgg a tëddi te ñu ngi ñu tëddi lu tax nga leen di tooñ. baal leen ma les gens veulent dormir dañuy liggéey suba il est une mais lu tax nga leen di tooñ. mais baal leen ma ak. quand même na ko ko def fond quoi. lu tax nga ñuy tooñ donc ah? lu tax nga ñuy na nga woy tooñ.

donc maintenant yow tamit ñoom patra ñoom ñëpp si man si man la ñu jaar seen bakk yooyu yëpp maa leen capit euh, si daat ñoom ñëpp si man la ñu jaar ah donc maa leen maa leen doon dañu doon tëju lëlu ku su nekk ma jox la sa bakk yàlla moo ko dogal je suis artiste non mm-hmm. c'est sûr c'est jour <laughs> mu rafle client yi jour bu mu jëlee clientèle bi man a garaaw na jël parce que yàlla comme euh, on est riche de parcours mm-hmm. pas seulement d'argent de parcours d'expérience moo tax ma ne riche kon su soo riche boobu richesse boobu soo ko amee da ngay mën a tolérer da ngay mën a comprendre lu tax nit di réagir lii parce que faible niveau bi su faible rek day day réagir neneen mais j'ai pas de problème avec les gens qui ont avec les intellectuels moi j'ai pas de problème j'ai que des problèmes avec les bas niveaux les gens qui ont bas je peux j'ai des problèmes avec eux quoi parce qu'on dañuy gaaw dañuy dañuy ñaaw njot lu tuut ñi mais les gens qui sont au niveau les médecins j'ai j'ai pas de problème avec eux <laughs> les gens bien quoi pas de problème avec eux mais les gens euh, dañ may tooñ ne <laughs> ah. la ma jur lu tax ñu koy tooñ. de la maajoor ju fey <laughs> léegi Ousmane tooñ nga ko parce que dagg nga waxam lu tax nga koy tooñ. quand même <laughs> voilà. ah. Pape Cheikh bi ma tooñati waay man aw ma benn problème. voilà àggali ñu comprendre. voilà donc léegi bi ñu demee. Hmm. voilà donc euh, pour ñu tënk ko bi yoon. Uh-huh. ah comme je suis venue je dis j'ai ouvert les studios aux auditeurs. Mm-hmm. je suis pas venue pour ouvrir un restaurant. Mm-hmm. donc je vais je vais le tolérer. Mm-hmm. maintenant bi ma décidé nag accélérer les travaux de rénovation. ñu jël téléphone bi di woote gendarmerie. mi ngi takkal ak coulage bi mi ngi takkal suñu carreau mi ngi et cetera mi ngi ak cetera gendarme bi ñëw parce que benn équipe bu bees donc ak directeur euh, de l'urbanisme bu bees bu ñëw. donc pour euh, xam nga soo ñëwee plaindre foofu rek. ñoom dañuy ne dañuy jéemaat xam lu xew. dëgg la bon ils viennent euh, arrêté jël maçon yi yóbbu. su suñu jëlee maçon yóbbu gendarmerie. vers 11 heures du soir ñu libéré leen. Mhm. après ils disent écoute il faut nous amener les autorisations de construction. Mhm. alors qu'autorisation de construction propriétaire n'a pas d'autorisation de construction ñu ngi koy jàppale pour régulariser la maison. d'accord. et je suis partie à plusieurs reprises à la direction de l'urbanisme beneen problème encore. voilà oui. une démarche ça veut dire que. Mhm. da ngay da ngay da ngay commencer ba foog ne fii daal franchement c'est le c'est le bon quoi. ndekete yoo. problème baa ngi doog a ma ne waaw lu tax ngeen may tooñ bu leen ma tooñati waay. dégg nga wax ji. Mhm. ah gendarme gi ñëw nañ fa à plusieurs reprises mais da ngay ñëw arrêté travaux yi. Mhm. gis nga dama def benn travaux de xam nga sooy coulé. Mhm. da ngay da ngay da ngay chaînage. après coffret teg say fer yi. bëgguma la dogat hashtag bi cartonné actuellement réseaux sociaux yi. lu tax nga may tooñ tax nga may tooñ. def nañ ko hashtag def nañ ko hashtag ci réseaux sociaux yi. absolument lu tax nga may tooñ. voilà àggale franchement parce que tooñu ma kenn man. Ah laaj tooñ billaahi tooñu ma kenn. kon donc léegi su ko defee ma bi nga fa jógee. ñu jël genre kii sama per sama sama sama ouvrier yi yóbbu teg pas teg yóbbu garde à vue gendarmerie. avant guddi ñu libéré leen. ah nee lu xew parce que du fay nekk en ñu ne lu xew ñu ne ma gars yi gendarmerie ñoo ñëw de arrêté dañuy travaux nañ amuñu autorisation. fekk six si suuf ñooy woote. ak ñu ngi xambee taal yi nit nit rek la dafay gendarme bi da ngi ñëw rek remonté a ah, deela gestu croit tout permis xam nga foofu lañ lay dëkk dañ lay dëkk foo xam ne dëkkuloo fa man ku ma approché da xam ne moi j'ai pas de problème mais soo ma gisee à distance da ngay ne kii def brititeur kii def et cetera xam nga sànq bi ma ne je suis riche les gens dañuy foog ne affaire xaalis lay wax alors que riche d'expérience bokk na si xaalis bi maa ngi maa ngi góorgóorlu comme tous les Sénégalais mhm. di fegal sa soxla sama bopp mhm. dégg nga wax ji mhm. sama mariage <laughs> ba ma ba pare ndeysaan ñu dem euh, lune de miel à Saly euh, à Mbodiène un peu partout ma ne ma gendarmerie ñu oti ne fa. xanaa yëgaloo sa takk bi. ñëpp a ko yëg. man de mais lu tax ñu may tooñ. pendant que yaa ngi lune de miel. pendant que je suis en lune de miel sama détracteurs yi n'ont même pas hésité. di indi gendarmerie à Saly pour me perturber. pendant que yaa mais oui pourquoi cette animosité finalement c'est de l'animosité. pourquoi ñu may tooñ. lan laa leen def ba ñu may tooñ est-ce que dama est-ce que man dama rey nit. je crée un club pour créer de l'emploi pour des jeunes. pourquoi on veut me stopper parce qu'il y a un restaurant qui veut avoir un chiffre d'affaires man ndox la si man. parce que sama serveur vocal bi lu muy rapporté seen restaurant boobu rapporté wul un franc moo tax suñu amee encaissement ma ma juural leen béton te man duma am encaissement liquide parce que jël nañ ma sama clientèle mais yëngalu ma pourtant maa ngi continuer samay travaux da nga wax ji mhm. donc ils sont venus sama jouru lune de miel débarqué kon sa jëkkër war na pas au courant géré cette histoire quand même je peux gérer par texto ces cette histoire. Écoute, la gendarmerie est venue, a, a les, comment ils s'appellent encore, les, de gérer ce problème-là et Et je, fais autre chose. Dengawardi. C'est terrible, hein Pourquoi on veut me laisser en paix même en lune de miel on me perturbe ah, mais c'est grave xanaa seen yaram mun na daw nag léegi ay nit rek ngeen lu tax ñu may tooñ lu tax ah. ñu lay tooñ bàyyi leen ñi ko tooñ c'est pas normal déglu ma beneen bu gën a grave si même bi uh-huh. xam nga soo ko créé uh-huh. soo ko créé. comme que amoon naa benn studio bu ndaw fa lay fanaan pour superviser lépp. formation animateur yeeg. programme bi gisaane yeeg. tout parce que man local dama fay fanaan pour mun ko sentir. dégg nga wax ji. à un certain moment donné artistes fi ñu nekk day rëbb. ma ne donc mënatuma fi fanaan. ma dem jël benn kër si booru géej gi. am nga xaalis kon. moo demee jël si kër si booru géej gi. ce qu'il a dit tout à l'heure ce qu'elle disait tout à c'était c'était magnifique l'environnement mm -hmm. parce que j'ai ma ne dama fay def bureau sauvons nos lagunes et nos plages mm -hmm. parce que kër gaa ngi sës rëkk si géej gi mm-hmm. une grande dame qui s'appelle Oumi Dieye moom moo ko moom mm-hmm. comme moo loué woon chez Jo ma bëgg fu chez Jo bàyyi dafa daw ñoo si sama sama suufu kër ma ne ko fu mu bàyyee nag fa laay dem jëli am na ko ma ne sooy sooy tëdd yaa leen mën soo taxawee yaa leen mën sooy naloo sa yaa leen mën bilaay yaa leen mën dee la doo seen morom da nga wax ji loolu léegi may bàkkee sali sama clientèle yi mhm. doo seen morom te suñ koy wax seen xol lañ koy tibbee parce que duma seen morom waaw léegi lu tax duma seen morom. kon lu tax ñu lay tooñ. lu tax ñu may tooñ mais ñu may tooñ mais duma seen morom dégg wax ji. Mhm. bi ma demee jël kër Oumy Dieye mu ne ma léegi du ma la jox fii parce que fii investissement bu mag lay laaj mhm. beaucoup d'argent mhm. am naa kër boo xam ne délabré na mhm. mais mu dafa laaj defar loo fa defar defar ma facture bi ñu dindi ko si loyer bi si saa si ma yëkkati six cent mille jox ko dem uti ko jox ko ma ñëw fekk ma fa circuit d'eau fekk ma fa circuit électrique fekk ma fa dara à part benn plafond comme nu ma ko waxee ma këpp fa cinq millions et plus d'ailleurs buntu sa amul buntu yi maa ko def fenêtre yi maa ko def carrelage bi maa ko def mettre de l'amour la bas parce que je voulais un bon local pour sauver nos lagunes et nos mhm. ñu ne dof bi ñëwati na daal bàyyi leen ko bu ma këpp foofu xaalis après ñu provoqué ko hmm. ñu commencé annoncé la couleur ah, yaa ngi defar rek de waaye bés bay génn fii yëpp la lépp nga fiy bàyyi de te li nga fiy def yëpp kenn du ko déduit si loyer bi xam nga wax bi commencé lu tax mu may tooñ lu tax mu may tooñ tey daf ma ne kaay defar kër gi après ñu xaar ba defar ko ba pare jël 5 millions dugal mu ne musuma wax loolu yàlla nañu yàlla àtte muy encore keneen lu tax mu may tooñ c'est pas parce que nde mun na ko lañ koy tooñ mhm. yàlla mi ngi seetaan dina xam ndax loolu la wax waxul loolu la wax mun naa ko ko sarax sarax may ni ko tuddee ni koy tuddee mais bu ma nee defaral ba pare ñu déduire mu gi ëlbati wax bi ñu naan déet ma ñëw dakaar mu ne waaw am nga quelque arriérés de loyer fàtte na 5 millions et quelques ma fa def donc euh, waaw rek yóbbu ma xaw ma lan tribunal pour arriéré de loyer ndeysaan mhm. fàtte na li ma fa def te fàtte na compense yi sax dàq ne compense daal du am xam nga yaa une loi si affaire location yi les travaux durs sont gérés par le propriétaire mhm. mais dafa décider tooñ ma xam lu mu def doomam mhm. benn Maguette Gueye la tudd bëggoon nekk sama assistant finalement quand j'ai vu qu'il n'était pas compétent je l'ai libéré ils n'ont pas supporté cette histoire et quand je suis venue à Dakar xam nga mu def jël chaîne mon appartement mu tëj porte bi neen def bay tooñ bu mu tegee porte bi tëj yeneen porte yi fekk man entre temps mer naa ma ne damay dam dëkkaat club ba à Saly mhm. local bi je vais voir mun naa ko bàyyi sama personnel mhm. comme mun naa ko libérer mhm. mais comme que quand même def naa fa cinq millions et quelques donc j'ai pas libéré su ma neexee li ma fa def dama koy jël su ma neexee changé waat dafa leneen lu gën a rafet parce que pare gu ma transformation yi dégg wax ji Abbé ah, Cout pendant mon absence mu ñëw chaîne kër gi ba mënatuma si accès ah sama per bi laaxi xam nga kooku mu ne tooñ